aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu am di jàmm di nuyu ñi nga xamantene ño safo safoo seen média di tok di ñu seetaan à chaque fois ñi ngi kontaan ci yéen gën leen a seetaan abonné gën a aimé chaîne bi di gën jëm kanam ñi leen di gën di jox ay thème yu neex yu doy waar ndax fi dafa neex thème yépp lañ leen di indil fi suma ma fofu nak fofu lay laay dugg ci kër kilifa diiné di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér di sàkku ci ñoom ñaan ndax seen ñaan am na solo ci ñun su ma jugee ci kër kilifa diine dugg ci prison bi di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw da nga xamante ne ku ci nekk sañoon nga bañ faa dugg te jombul kenn nag prison jombul kenn yàlla nañ ci yàlla musal ñi fa dugg yàlla na leen fa yàlla génnee te bañ bañati faa dellu jóge ci prison yi dugg ci hôpitaux yi dugg ci post de santé yi dugg ci dispensaire dugg ci clinique yi di nuyu ñëpp ñi fa tëdd di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp ñu tollu diggante war a am doom yàlla na suñu borom may leen oom yu sedd ñu geestu rek reetaan jóge foofu nag daal nag ñëw di nuyu ñaa xamante ne dama leen di beral loxo maa ngi ñëw nag ci ñu am solo ñoo xamante ne ñoo tax ngeen ñuy seetaan di ñu gis ñu yànju lool nii muy waa régie di nuyu Dabzo mi nekk ci ginnaaw caméra bi di ñu def ñu nice di monter di ci sonn nuyu nañ la Dabzo di la wax maa sa coono di nuyu joli Caba Diom Ndiaye gis nañ sa liggéey rafet na yow tamit yaa ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax ginnaaw caméra moo ëpp solo fuuf lii ñu toog di def ndax buñ leen bu ngeen ñu gisee ñoom ñoo tax di nuyu Nestor ah di beral nuyoo nag suñu PDG suñu PDG Moustapha Ndiaye boroom kër gi ñu ngi koy nuyu moom mi ñu yaatal xàllal ñu fii ñu def lu ñu neex bu ngeen ñu gisee balaa ñoo def émission moo dàq foofu émission bi. amaana dinañ leen indil benn yoon benn jour dinañ leen indil avant émission ngeen xool xam suñu PDG ni mu mel ak ñun yàlla na ko yàlla yokk ñu dund ba teleem bii dem fu kawe kawe kawe kawe foofu laay jugee nag ñëw ci thème ba nga xamante ni thème bu doy waar thème ba nga xamante ni lëmbe na àdduna bi thème bu sensible thème ba nga xamante ni ku nekk yaa ngi koy jooy toog sa ruq di xaar ku la ko waxal tey nag waa seen société ñoo leen koy waxal tey ubbi ko fii teg dossier bi di ko jël benn par benn di ko detaaye ba ku ci nekk boo ci amoon lu la naqari yàlla na sa xol doxee féexee fii ci ñun ñu regle problème yépp thème boobu nag du lenn lu dul tuuma tuuma di loo xamante ni rey na gor tuuma tax na nit gàddaay tum tuuma tax na nit mënatul génn sax buntu këram romb nit ñi ndax munoo buñ la tuumaalee fu ne nga fëgg fa di weddi loolu kenn mënu ko dangay bàyyi rek borom bët bii moom mi nga xamante ni lu regle moo ko réglé mu réglé la ko te am na ñoo xam ne àttan nañ ko mënuñu koo xaar mënuñu koo xaar dañuy dañuy obligé soit am na ñoo xam dañuy sax xaru dem mais ku xaar rek suñu borom lu ñu la tuumaal dina la ko lijjantil yàlla na yàlla leeral lépp ñiy tuumalaate yàlla na suñu borom wàññi leen ñu jubbantiku bu baax a baax a baax ndax baaxul yàlla nañ ci yàlla musal ma ànd ñeen ma ànd ceeg tey nag sama naataango yi nga xamante ni ñoo jekk plateau neex a teg ci plateau xale yaa ngi ni jongoma lool ma ñëw ci sama tukkuleer bi jey na ba ba ne da ko bàndoo ba la jéeri eh, oko dan lañ koy waxee sax aale racine am na beneen boo leen di wax dafa neex tukkuleer dafa neex tooro do sàmma ngaari jamaar maa la bàkkee noonu xanaa neex na def naa ci nag def ci ay soow déggal li ah lu sama boroom kër bëgg waaye nee na lool ah lii dëgg la ah jeeba kontaan naa ma bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum yaa Dior nuyu naa la tout d'abord. maa ngi lay di nuyu Ndeye Diakhaté sama copine de cœur. di nuyu waa régie yëpp di nuyu madame Ndiaye moom mi ñu defal tey añ bu neex macha allah toppatoo ñu defaral ñu ba ñu baax. yàpp yi bari na ginaar yi bari na bu ma kenn summi nag dañ ñoo bernde rek. di nuyu monsieur Ndiaye borom kër gi di ziar di ñaanal yalla na barké la lépp mo njaboot gi ak madame Ndiaye ñu soxaloon ni asaman ak suuf. amin. amin di nuyu euh, sama papa depuis Mauritanie di ko ziar di ko ñaanal gudufan fan di nuyu sama yaay di ko ziar di ko ñaanal gudufan fan di nuyu sama yaay Ndeye Ami sama yaay ini ak nyep kulim. lim. Waliwen. Liwén. sana nyoba ndeysaan ñu di lenu di lenziar ziar ñëpp tout le monde tout le monde maa ngi nuyu waaw di wax ni nag euh, tey dafa am ku ma bëgg nuyu Giorgio boo ma ko mayee. may naa la ko yow loo bëgg noonu la. ku sori ci man ki nga xam ne sama nit la. ah xarit la nag. Ah, nuyool kooku sori na. sama xarit la sama nit ku baax la. xarit yombul. waaw kay Giorgio kooku maa ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam muy jaw fay sama nit ku baax ku ma bëgg ku ma yërëm ku ma respecte ma jàppaleel ci nuyoo bi jaw fay nuyu nañ la waa seen média yëpp nuyu nañ la seen société nuyu nañ la jaw jeex na xanaa maa baax <laughs> gën <laughs> dangaa gën <laughs> jaw fay kon su nuyoo mu ngi noonu chéri ami seen ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa tar euh, wàccuwaay di la sant di la gërëm di la wax ni lépp li nga may defal gis naa ko ak fi nga ma féete ak ni nga may supporté ak ni nga may soutenir yàlla na sa jaama yàgg yaa xam li nga bëgg sa xol yàlla na la ko suñu borom defal yàlla bàyyi la ami seen seen caali dem ba seen di nuyu nag kilifa aada sëñ munta Mbàkke suñu sëriñ ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla guddal ay fanam ñoddi ay fanam wéral ko ba mu toog dañu jiite ndax am na solo di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ku lim juum ku maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Ayda Njaay madam Sangare sama rak sama xarit di ko nuyu di ko ziar yaay bébé Assane waaw maa ngi nuyu ñëpp daal di leen ziar. jeex na jeeba jeeba nuyu na ñëpp nuyu na ay nitam ndax koo nuyu. ba ne sori na ci man rek sori na ci yow ndax fii kenn doful kon nag jeeba ñi nga nuyu ñëpp ñi nga seex ak ñoom yàlla na suñu borom dëgëral ko bu baax baax baax a baax waaw nday jaxate jaxate kaba yéeli sama sama sama sama jumelle bi nday tey voile nga laal de xëcc été woo été bi tàngaay bàyyi woote ah, waaw xëcc été te xanaa xamoon ne joor voile yi nii boo ko solee da dégg jàmm ko ñemewul sax am na ñoo xamante ne bu ñu laalul laalu ñu mbubb sañu ñu sol lu oyof nii rek di ko fëloo noonu rek génn am na ñoo xam ne amuñu fitam dasa xam ne jongo ma dëgg mooy léseeru nii jël lu oyof may ko valeur te da koo may valeur ñun dañu suñu émission bi day yeete mhm. dañoo war di def lépp loo xam day yeete mhm. bu teyee nag ñu dugg ci jasneer bu mhm. subaa ñu def yëre tubaab bu gënaaw subaa ñu def voile ma nii tey tey laaluma musóor tey laaluma musóor barki rasulaay tey laalu ma musóor wan leen ni facette bu ne dañ fay génn xaar leen ma ci yeneen maa ngi ñëw. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam du nuyu waa Sénégal du nuyu waa àdduna di leen wax ne ñu ngi fii ci seen société ci émission seen euh, seen société ñëw fii ci seen site seen média di nuyu ñu nekk ci hôpital yi. di nuyu ñu ne ci prison yi di leen wax yàlla leen fa yàlla génne ak jàmm ndax foofu moom jommul kenn waaye lépp lu fay dugal rek yàlla nekk la nga xam te ne euh, looy réccu la ak looy regretté di nuyu ñu nekk ci hôpital yi yàlla na leen yàlla yëkkati ak jàmm sama mag ja foofu ci hôpital principal yàlla na ko yàlla yëkkati muy Marie Madeleine King yàlla la yàlla yëkkati ak jàmm ak salaam suñu xool ak suñu xel yëpp ngi si yow amiin yaa rabin muy mat leen King di nuyu sama papa Ibrahima Jaxate samay sœur samay frère sama jëkkër ñëpp tout le monde li ñuy wax rek émission yi moom boo bëggee lim ñëpp surtout say soppeek say am jàmm yëpp duñu fi jóge mhm. dañuy tënk rek def lépp ci benn kër nuyu ñëpp mhm. di ñëw si suñu émission seen société fa yéene waxtaan ak yéen ci thème bi mooy tuuma tuuma nag du wàllu gor mhm. tey nag ma bëggoon sama mbokk jigéen yi am na ñuy déggee benn nopp am na ñuy déggee ñaari nopp waaye nag maa ngi ñëw ci sama mbokku jigéen di leen wax na leen émission bii émission bii ñuy def muy tuuma képp ka nga xamante ne sa lépp sa àdduna defoo ko lu dul yàq deru doomu aadama tuuma laate bàyyi xel émission bi ngal la mu changé la ndax nag bu ñu bàyyi suñu yitte yépp ñëw toog fii di def émission pour yee askanu senegal la ndax nee naa la télé yi bëri nañu site yi bëri nañu te chaque jour li ñuy waxtaanee moo nekk ci dëkk bi li ñuy waxtaanee moo nekk ci ci ci li ñuy waxtaanee moo nekk ci dëkk bi waaye nag suñu PDG monsieur Ndiaye nekk xale bu ndaw ñëw na leen man mii dinaa fas yéene indi ña nga xamante ne dinañ waxtaan ak seen mbokk yi dinañ waxtaan ak jigéen dinañ waxtaan ak góor muy seen émission seen société ñu fas yéene ànd ak yéen waxtaan ak yéen yee leen ci tuuma ngeen moytu tuuma tuuma du wàllu gor ñu ngi ñëw léegi dugg ci émission bi waxtaan ak yéen yee ñi bëgg yeewu ñu yee leen nday nee na ñu yee ñu bëgg yeewu ñu bëggul yeewu sax dinañ leen fekk fi ñu tëdd ñu këpp këppal leen ñu jóg ndax man mi xam nga ne ku ma këpp këppal di nga jóg du dëgg par force laa leen di yee ndax dëkk baa ngi yàqu par force laa leen di yee ñu yeewu toog xool li ñuy wax ku ciy jéem a changé nga changé ku ci changé wul amaana yàlla suñu borom soppi la ndax yàlla ku mu bëgg soppi nga soppeeku ay nit a ngi fii meloon naka su dul noonu yàlla soppi leen tey ba ñëpp fonk leen bëgg leen yàlla na yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñooy tuumalaate ba suñu borom soppi leen tuuma di loo xamante ni dafa doy waar billaahi dafa metti nit tuumaal nañ ko ba mu génn dëkk bi nit tuumaal nañ ko ba mu ba mu ba buub ay bagage am kenn xamul fu mu nekk ne am na ñoo xam ne dañuy génn dëkk bi sax nga xam ne mu ngi teel dëkk mais dootul ñëwaat fii senegal am ñoo xam ne xamuñu fu ñu nekk ñu naan ay dañ leen naawtal fekk des fois du sax naawtal dañ leen tuumaal ñu gedd dem du ñu ñëwaat ndax tuuma dafa metti imagine nga yow defoo waxoo tinoo te tuuma bi gën a metti mooy tuuma bi nga xamante ne ñu ngi la ko tuumaal nga toog pendant dix ans door a yëg ni tuumaal nañ la lii après yow fi nga toog yaa ngi imaginer ci dix ans yooyu yëpp li may dox yëpp fi may dugg li may génn kër gi ma jaaroon fi ma nekkoon hmm? nekkañ man lii lañ ma doon xoolee te loolu lépp man maa ngi ko romb xaw ma ci woon dara choc boobu merci mhm. choc boobu des fois sax nga ne dem naa tel endroit ah kon loolu ñi ngi may xool pour man damaa sañse kon ñii loolu lañ ma doon xoolee da ngay dem ba da nga naan kon liñ la doon xoolee lépp lépp négatif tuuma bi la woon te amaana am na ñoo xam ne ñi la doon xool parce que da nga dañ laa bëgg mais da ngay jël ñëpp def leen ci benn saak mhm. parce que tuuma gi la muy loo xamante ne ku nekk yaa ngi koy jooy amoo foo ko waxee fii nag ci seen société gi lañ koy ne tas tasar benn par benn tey leen toog déglu ñu def ko benn par benn leeral lépp ba képp ku ñu tuumaaloon à travers émission bi ñuy def fi nga toog di nga am lu lu bu lépp dañu lit dina am lu la apaiser tuuti ci sa kër dina am lu wàcc ndax di nga gis ñu jox fi ay exemple yoo xamante ne yow da nga ne kii moo ma gën a mettile sa bos dina oyof ci yow yàlla na lépp oyof yàlla na lépp deñ jéeba jéeba gis nga tuuma dem na ci ba dangay gis ku ñu tuumaal mu ragal a génn sax buntu néegam parce que dañ lay tuumaal te yow munoo yow buntu kër gu ne nga fëgg fa ne defuma ko liñ naan mën a mën a fa mu yegg du man yeggu fa loolu kenn mënu ko da ngay obligé soit nga mën toog xaar suñu borom fajal la ko liñ naan seetaan a dàq suñu ndaje te suñu borom day faj ah, sama xarit bii day faj ba mu faj mais am na ñoo xamante ne attanuñ ko dafa am ñoo xamante ne dara xajul ci ñoom attanuñ am na ñoo xam ne dañ leen tuumaal fii ba suba faale ñu la ah lijjantiw ñu la tuumaalal fii ba suba ñuy gën a dem di gën a di gën a dox di lijjanti ba nga naan kii kii kii est-ce que moom di yaramam bi deret a ciy dox parce que faalew la am na ñoo xamante ne tuuma bu ndaw boo leen ko waxee du ñu nelaw ilaa yow mi diin mën na leen ronger di leen ronger ba mu dee sax man suul nañ ñu bëri ñoo xamante ne loola leen rey merci am ñoo xamne dof lañ ci tuuma lañ ko jëlé ñu tuuma la dara ngay tëdd di xalaat cerveau limi atta do nga la mëna atta lo ci charger lu ci bokkul day feeñ ci yow na nit ñi delo seen xel delo seen xel te xamne fi fii yàllaay maye yalla fi nek yow bo xolé nit rek bañ ko yow bañ ko rek te nga bay ko man je préfère nga bañ nit ki croix ko multiplier ko do ko tudd do ko taas mais mëno yow bañ nit ki ne dama koy tuumal dama yak àddinaam fi kenn mënul yak adna nit xana mu neex suñu borom te yalla day setan ba nga fogg ne yow la faral fekk ila faralu la var nga ñew prolongation nga ñew bu match bi tassé nga xam yalla faralu la barki rasuulaay fi kenn doful ñepp ku ne xam nga fi kay tek sa tank ku ne xam nga ñi la bëgg ku ne xam nga ñi la bañ sénégalais mo mo tamb semblant ak ak ak nañu rafetal nañu rafetal ak nañu defar la nit ñi di sikandiku ba foo ne nit ki xamul li nga nekkeek moom wala xamul li nga mel ci moom nit ñi xam nañ lépp ah, dañ lay bàyyi ci biir amuñu sa jot foofu lañuy ñuy jaaree nag bëgg laa tuumaal te tuuma ji ba li koy indi lépp lépp boo ko tënkee lépp ëmbul fenn lu dul ci jalouse jalousie jeeba ngi dem bu xëyee dem liggéeyi bu wàccee mi ngi këram duggul ci kenn bu soloo àbbu la diwam ñaanu la diw yow nga toog naan jéeba mi gisuma fenn fu mu ñaanee dara gisuma fenn fu mu amee soxla wax ko nit te à chaque fois boo ko gisee mi ngi impact mi ngi jongama mi ngi ci jàmm te yow xamoon ne jéeba am na ay problème yoo xamante bu la ko waxoon yow tey waxuma la tuuma yi la ngay toog croiser la bras nga bàyyi àddina parce que ku nekk sax ñi ngi sax la ñuy demee léegi yow nga ci loolu yow rek bañ nga jéeba am na ñoo xam ne banóoru nit bugguñu ko bañ nga koo commencé nga ah jéeba ah nga romb rek ñu ne ay waay te tuuma fi muy commencé mooy ki la bëgg la ñuy commencé da ngay romb nit ne ay waa ni ma soppee xale bii ay waa jéeg ba maa ko sopp yow dafa rafet ñu ne la sopp nga ko bon rek mu def la choc yow nga ne bon ñu la kii ku bon ku doy waar li nga koy gisee nii mu jekk nii jongo ma nii tuuma bi dañ koy créer defar ko defar ko ba ñoom dañuy dem ba à tuuma bi ñoom ñi la ko teg dañuy gëm tuuma bi dañuy dem ba après teg ko dëgg pour mieux régner pour mieux régner merci gis nga dom joor doom jaamur ku ko yàq da nga koo jurul da nga koo jurul de fii rek ku ne bot nga sa dom de waaye gis nga ku bëgg ku yor sa nga ñu wax leneen ci lu lu ñaaw lu baax rek ngay de te gis nga bubu moo sol jotu la mu xat la metti lool ci yow fàtt la waroo koo sumi di xool koo tollool ne ko solol te nga dem ak moom ko jox ñu tolle ku la ëpp ëpp nga jox mu leer na ne dugg buñ ko joxoon ko tollo sax ci porte ko mais dañuy jël. ya yoon nit dalay japp dila tuumal dila tuumal dila di sosal di waxal lu bon ba mom day dem ba ko. mom la wax legui ne amna day dem ba ko yaakaar lolu dafa am barki Dembo Ndiaye rek dafa melni da nga yëgoon li ni ma ngi ci doon waxtaan ak sama benn copine madame euh Damas Damas job mu ngi dëkk borom cité djili mbay mhm. kër ko rek ñu ngi ci doon wax ma ngi koy nuyu di ziar madame girane ñu ngi ci doon wax mu naan ma ñu expliqué fekk mu may woo barki démb di euh, démb di ma souhaité joyeux anniversaire ñu ji ciy wax. Mm-hmm. ñuy wax ci genre yooyu. juste rek nii mu mel ni loo yëgoon nii. man ne ko gis nga damas mu ne ma waaw ma ne ko gis nga nit. dina la tuumaal tuumaal la benn affaire bi nga xam ne dëkk ci dëggal ko mu doon dëgg ci moom ba moom mi di ko wax mu dem ba gëm ko te amul. Mm-hmm. gëmloo ko nit ñi ba ñu gëm ko te amul. te gis nga dañuy fàtte benn affaire. yow yaay joor c'est pas parce que rek am na lu mu yor yaakaar nga ci moom nga ne xaar ma man man jeebaa xaar ma yàqal nday jaxate yàq deram def lépp ba yaay joor ragal nday jaxate ndax lan am naa lu ma yaakaar ci moom yow rek jox bopp te gis nga ñetti fanu bàmmeel dafa am te gis nga tôt ou tard nit dinañu gas ba nga xóot ñu dugal la ci te bu boobaa gis nga tuumaa li nga tuumaal nit ñi kese mo la fay fekk man je me dis que nit même bo demoon ba xamal ko dara sax xamal ko lu ñaaw war nga ko sutural ndax suñu borom neena ku sutural nit mo sutural la de te nit ku nekk da ngay dugg lu ci sayon nekk da ngay wax li nga xamantene tay ji ni bo boo ba doon kat rek ñeme ko organiser nga yor say matériel di yor ay preuve lèr nañ tay ji buñ la néwon li ngay wax ci yaay jor ni yow est ce que deug la yow génneel preuve yëpp nga ne mu ngi nii dëgg la lépp mu bool mu mu mu bool mu mu bokk ci sa soxor bokk ci sa iñaan bokk ci jalousie bi nga jalousé yaay joor bokk ci bañ bi nga ko bañ te yàlla tax te gis nga gis nga gis nga nit mu xool la bañ la wala ba mu jaral ko mu lay tuumaal loolu du ci yar ci nit la nit la nit mun nga ko yar ba mu yaru mettre ko dans bon condition xamal ko lu baax xamal ko lu bon mu xam lépp mais moom mooy am xolu rek yow mënoo supporter kenn ndax yow boo sañoon yow rek yaay am yaay toog ci kaw keneen ku am keneen ku am sa xol di dagg keneen ku ñuy dimbali sa xol di dagg nga ne tey jii nii kii dinaa def tout ba yàq ko ci chaque instant nga sànni ko ay wax mu xam lépp ne ak moom di la seetaan nga defee ne nag yaa ci ne te la nga koy waxal lépp ki nga koy yàqal lépp xam na lépp toog di la xool ne pat jàkkaarloog yow te gis nga bésu jéggi siraat ko dul xalaat rek lu la gis nga dina am ñu bari ñi nga xamante ne bu ñuy jéggi xam nga lu leen fay téye ndey jaxte yaa joor xam nga lu leen fay téye la nga waxaloon yaa te leeru la ngay dem bay waajeeg ñu ne la kaay ciix kaay waaye yaa nag la nga ko waxoon pot de fleur bi nag. ah loolu moom faaw ñu wax ci am na ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañ dul xalaat te man nit naka ngay xoolee nit rek nga jël benn affaire bu ñaaw rek nga teg ko ci deram wax ko lu ñaaw wax ko lu bon derrière son dos nga wax ko lu ñaaw wax ko lu bon rek mu doon lu dëgg ci yow rek mu doon li nga xam ne dëgg la ci yow rek nga def ko sa biir xol rek wax ko ko ni gratuitement xooloo ci ndeyam xooloo ci baayam xooloo ci ay magam xooloo ci ay rakkam xolo dara nga yak ko nunu rek yak ko nunu rek parce que bugo mu dem bugo ku ko defal bugo ku ko jappale pour le plaisir nga yak adunam yak imaginam ba image ba nga xamantene ken kenn ñemeetu ko nawlo ken ñemeetu ko xol ken ñemeetu ko jégué ken ñemeetu ko dara ndax lan yak nga yak nga deram ba yakale adunam te yego ko te lol lepp nak tegalu leen ko ñom rek nonu wala nga tek ko sen bok ko barki rasulaay àttanuñ ko la nga xamante ne yow bu ma jëlee li wax te am na ñoo xam ne xam la moo tax ñuy def loolu jeeba pour pour heureuse am na ñoo xam ne ñu yàq la yow ba xam ne yàq nañ la ba nga yàqu ndax dañ lay tuumaal après di la toppate di xool ndax affaire bi affecté na la après ñoom noonu ñoom ci la ñuy heureuse am na ñoo xam ne malheuru nit ñi loolu loolu loolu neexalul heureuseul leen parce que gis nga gis tuuma man man ci li ma gis nit ki nga xamante ne yow da ngay sosal nit ki da nga koy tuumaal doo wax lu la wóor da ngay gis ki nga xamante ne day am lépp chaque jour day jël or ko mbubi yi oto yu rafet yi kër yu rafet yi jamaa yi lépp ci biir mais xolam foo ko fekk day tàng problème sur problème xam nga loolu lu ko waral yàlla nañ ci yàlla dégg doy xam nga loolu lu ko waral parce que dangaa jàpp nit ki tout le temps tu es derrière doo amul loo ko dul desal te bu dee sa morom muy sa morom nga am sœur ni moom mhm. bu dee xale nga am doom ni moom bu dee euh, euh, euh, góor nga am doom ni moom te yow ku jëloon sa doom jooju def ko noonu yow dina metti sa xol de dara jaru ko dara jaru ko si nit jaru ko iñaane nit jaru ko ñàkk yéene nit jaru ko bëgg koo yàq gratuitement rek nga toog nii rek te yow bu ñu la neewoon indil preuve nga nga ne sekk cest à de ci saa si waat dong lañ ko yaakaar te dañuy waata waata waat te waat xam ne day lekkat preuve bi mooy loolu waat waat dem na ba nga xamante ne nit ñi ci fo lañ ko boole waat baaxul waat baaxul ñi dañuy waata waata waat ci seen sëriñ waat ci seen seen ba kenn doom xam nga luy waral waat bi liy waral waat bi mooy des yow nit ki mooy tuuma dafa diis tey mën naa ñëw ne la yàq sa der lan ngay def joor am na yoo xam seen xol dafa oyof danañ la waatal commencement ba fin pour nga gëm lu tax yow nga gëm boo bëggee gëm ngay gëm boo bëggu gëm te sax même bu dee da gëm sax doo gëm cent pour parce que yàq nañ xolu yaay joor ba pare ci nday jaxate mooy loolu yooyu mooy indi ay waat ba pare nit ñi léegi dañuy waat ci ay fo yow xamatoo kuy wax dëgg ak dul wax dëgg gis nga man su ma la waatalee billaahi wallaahi wala mën na la barke Sëriñ Babacar si mi nga xamante ne moom mooy sama euh, karaw bakkan bi yow gëmoo ma du ma la waat du ma la waatalati ci dara soo bëggee yaay joor man euh, xawoon naa dee bi may doog a sëy ndax comme ñun dañoo dëkkoon suñu kër papa ak samay frère kese xaw ma woon ay sëy kër famille xaw ma woon xaw ma woon ay kii xaw ma woon lan mooy sëy xaw ma woon sax sëy famille am na man xaw ma woon sax yenn yi am na yiy xew ci kër famille yooyu yëpp xaw ma am na. le fait que man ba ma sëy jee ma déggee coow ci mbedd bi damay daw dem seetaane parce que xaw ko. Mhm. ñun tëju lañu xamoon. dem ñëw wala dem jàngi ñëw dugg ci kër gi entraînement moo ñu génne wala dem jàngi bu ñu ñëwee si kër gi lépp am na fa. Mhm. lu bëri xamuñu ko woon mais bu ma sëy jee da dem ba da ngay découvrir yoo xam ne da nga naan lii am na yow nag xale boobu noonu bu fekkee ne yow fa nga sa papa ak sa yaay. may ñu la tuuti éducation da ngay da ngay da ngay sànku da ngay ah, waaw surtout nga nekk xale teel a dugg ci sëy ay dix-huit ans dix-neuf nga dugg ci sëy dem kër gi nga xam te ne ñëpp la fa mag nga ne ñoo la ëpp expérience junni yoon dangay ngay bu mag jegewu la di wax ak yow ah, ngay wax ak say pap wax ak sa yaay looloo gisul la jaaxal nga wax ko dañ ko war a wax ci sëy ndax bu fekkee ne yaay ju mel ni yaay joor nga kalaame ko benn yoon ñaar yoon ñetteel mu tas sëy tey boo gisee xale yu bëri bëri bëri duñu toog ci sëy ku mel ni sama jeeg ju baax jooju joli caba jafe na ci xale yi tey yàlla rek a tax may wax mook borom këram ba dara dul dara mook borom këram bu borom këram amee kenn xamul bu borom këram amul kenn xamul kooku xale yi mel ni moom jafe na de ñamu bokkoon génération ñëpp ñibbi nañ seen kër yaay. boobu musóori safagul gom. <laughs> ba dara bul dara boobu musóori safagul gom. gore rek a wóor. sama femme boobu laf cat rek laa koy wax yàlla na ko yàlla bàyyi borom këram. ndax dama ne la ñamu bokkoon génération ñu muur ne ñu muur leen ne leen seetoo seet dellu nañ seen kër yaay. waaw kuy magam nag kuy magam jaar Jóob mooy magam sëy lay def ba dee. wa parce que boy boy kuy yaayam. man déggoo li dama ne sama femme bobu sax. di sam sey rek lay def ba de boko yayam xalé yu ci bëri li tax ñuy dem soit xalé yi nañu yenn yi boo leen tuumaalee ñoom dañ koy lijjanti ci saasi buub seen ay bagage dem parce que moo nekk ci bir kër nit yenn say dina la tuumaal du dalaa jalouse de pour bëgg lu ma ngi tuumaal ya jor ci ndey jaxate pour bëgg lu ndey neex ndey jaxate ndax yakarna ci yakarna ci voilam bu rafet yaakaar naa ci litre rastam yi mu may. nit dina la yàq. nit dina la yàq pour bëgg lu neex joor. Mhm. nit dina la yàq pour bëgg sa defet mhm. waaye da gis nga joor lu la nit tuumaal tuumaal tuumaal amoo sa dignité xoolal nit boo yàggee ak moom ñu ne la diw moo def lii mhm. nga yàgg ak nit ki soo ko gëmee dalaa neex. dama ne yeen góor ñi ñu jël seen jabar di Yak seen xel ci yeen su ngeen ko gëmé da leen neex yeen jigen ñi ngeen di and ak seeni xarit seeni meer ami nit ñew na la sa xarit mo wax li mo wax la dama ne bu doon audio buñ la tégal sax waro ko gëm nit nak ndax nit dina la cuqu ndax nit dina la cuqu nit dina la fekk cuqu la na la ci ba jor li jor la jeba rusma kess ne waaw Jor kay mom ah Jor kay de war won def loolu xawa ki xolal jor nit dina am faiblesse am na am faiblesse man gis na ko jor gis nga mané pat mané pat baña wax yaay jor ndey ndey jaxati limi wax c'est très mais ndey ma pat baña wax fi kuñu duggal yaw la neexaan non non ñu ñew ndey man am ma xalé bo man am ma xalé bo xamantene wallahi bu toogee loo ko wax mën na waa waaw ah, dafa nitu mel ne parce que euh, li mu wax dalay lay rus da lay rus ñàkkal kersa non du du non du contribuer ci man salon de coiffure laa yor tuuti xolal xolal man waaw bañ la freiné mais duma ci contribuer fan laay waxee nga contribuer ci wax ji dëggal ko am na ñoo xam ne ñuy dëggal de am na ñoo xam ne dañuy dëggal nga wax da ci nday jaxate may la waay yow doo bàyyi xanaa yow loolu yaa ko yëg ñëpp mu cee xam ah, sukkandiku ci loolu fekk amul preuve sukkandiku ci loolu ñu wax ci nday jaxate te loolu amul nday lool du fi jeex gis nga gis nga sëy yaa ngi tas ndax tuuma góor gu ci amul fulla ba say rakk wala say mag ne sa nopp bi sa nopp jabar sa jabar a wax lii sa jabar def lii mayoo sa jabar jàmm sëy sœur seen jëkkër yi su guddee ñu sañ sa ba jekk def seen juróom-ñaari nalli def seen juróom-ñaari fer fas yéene bëggal sa jëkkër yow ñu yàq sa digganteeg sa jabar bu leen ko nangu dama ne sa jabar lu ngay joteeg moom na fekk yow borom kër nga gis ko yow ku jigéen ki yow it moytul wax nit ñëw ne sa jëkkër lii sa jëkkër lii sa jëkkër laa yow nga gëm ko doo may sa jëkkër jàmm doo may sa jëkkër salaam dama ne vice versa la ci ci ci ñaari pa ma ne tuuma metti na lool waaye berem benn nopp bi di ko gëm te gëstuwul booboo gën a metti gis nga nit dangay mat xam lan moo gën a metti may ànd ak nit nga xam ma ma xam la nga xam samay jikko xam samay qualité buñ la nee lii yaay joor a ko def nga xam ne maa ko def wala defuma ko nit jugee fële ñëw bëgg yàq suñu diggante ñëw wax la loo xamante ne yow leer na la ni boo tëddee xam nga ne lii waruma koo def mais dañuy dutewu gëm ko nga xëy ma woo la nga nga fayee ma kenn di wax ak man wax bu sedd su ma fa ñëwee du ma xam su nit ki naïve dalay topp ci sa jeu boobu ngay def looloo yàq relation yëpp rek ngeen tas parce que gëj nga gis ànd yoo xamante ne ànd yoo xamante ne depuis xale la wala ànd yu yàgg yu ñëpp xam ah, munoo muus ba du tas mais munoo muus bëri na loo gis am na exception loo gis te yàlla na leen yàlla fal cat yàlla na leen yàlla fal cat bëri woon na fi yow jee bari na fi ay nit ñuy ànd ànd nekk ay seex di fanaanandoo solo ndoo yére àndandoo demandoo màkk tuddante ay doom tey àndatuñu ndax lan ñëw nañ ci kii yàqu toujours kenn ki mooy mooy am ay idée négative kenn ki mooy dof nit ki mooy dof eh. man loolu soo ma ko defee yow jeeba dama lay ba gis nga loolu soo ma ko defee dama lay ba ànd naak du mën la lijjanti du ma la tudd du ma la taas parce que xam nga lu tax man xam nga kan moo may mere mooy ki ma xamul ma ne peut-être kii xamuma xamul sama jikko ñu tuumaal ma ci mu mere ma loolu mën naa lijjanti yow ba dem toog ak yow réalité ma tegal la ko expliqué la ba ñu trouvé terrain d'entente man aw ma rëy boobu suñ ma sosalee ci yow ma xam ne yow xamuloo ma ma xam ne fenal nañ ma ci yow sosal nañ ma ci yow mën naa dem ba ci yow ba sa kër ne la damaa gis nga changé kanam gis waxatoo ak man nii nga ne ma lii lañ ma wax ñu lijjanti kaat man aw ma problème boobu man jikko yonent laa yor du dëgg mais xam kan laay bàyyi man ki nga xamante ne danga maa xam nga xam ma may kan nga yàgg ma tagg yàgg wax samay baax baax nga xam man may kan nga dem ba ci biir ñu ñëw wax la te ah souvent lu ñàkk xorom nag mooy tax ñu mere la bàyyi la ñu ñëw wax la benn wax rek te day fekk souvent yow xolo veille bi yaa moo ma nekk ngeen waxtaan pillo wala ngeen wax téléphone ba reetaan ba tëdd ñu ñëw ci lendemain bi rek yàq fa sama der nga ñëw ne jéedéet du du dëgg lii la demee nga ne ko noonu la demee rek gëm na la rek ne croire naa la jël téléphone ba xaar ne xaama bloqué ko du ma jotati bloqué la teg ne mel ni yow yaa gën nit ñi gënoo leen kenn gënoo leen kenn fii lu ñu la wax ci nit woo ko ba mu ñëw surtout ay nit ñu doon ànd wala ay mbokk yu ànd wala ay nit yu doon ànd yàgg wool nit ki ba mu ñëw nga ne ko damaa dégg bu la neexee sax nga bañ ko ne diwa ma wax di indi di indi teesante nee ko damaa dégg wala nit a ma woo ki ma woo privé la ma woowee wax ma lii xàmmee ma voix mais lii la ma wax ci yow ngeen trouvé daantaan kon boobu kon ba léegi ñi ñee ngi ànd mais ànd yi tas na kër yi tas na ndax benn borom benn nopp yi loolu xam nga la laa tuddee dof loolu ku ko def dangaa dof maturoo dof nga parce que dañoo foog ne dof mooy ñu sol yére sër ay sagar rek seen seen xel dem ci mbedd bi dof yee ngi sañse ba jekk yor appartement yu baax yor jëkkër yor njaboot di sañse bu ñu sinabee wala ñu statut nga xool leen xool seen kër bu añ jotee ñu teg yu baax seen doom yi lekk dugal seen doomi yi école yi cher te ñoo gën a dof ki nekk hôpital Fann ñoo gën a dof ki ne dalal xel ñoo gën a dof ki nekk ci mbedd bi di lekk di di lekk ci mbalit yi ñoo ñoo gën a dof parce ñoo ñu dof weesuwul nga am sa xarit di ànd ak moom wala sa jëkkër wala sa rakk wala sa sa yaayu sax day am nañu tuuma ba tuuma laax sa yaay nga jéppi sa yaay ñu ñëw wax la loolu rek ci saa si takk sa réaction mooy bàyyi naa ko ah moom waxal lii kon de kii bàyyi naa ko doo trouver preuve doo lijjanti dara man lépp dama koy lijjanti ba mu ne këj ni correct su ma demee ba xam ne nag lii yaa ko def yaa ma ko waxal mu leer ma naaj ah vie laa lay bàyyi. dama lay teg ni tege. barke Rasulaay ndax mënoo baax ba pare nekk nit ku baax nekk nit ku sell yéen a ñëpp jàmm toujours jeeba ñëpp baax yéen a ñëpp jàmm ñoom la ñuy tuumaal. ñoom la ñuy jël mbalit mi di leen ko sotti parce que da ngeen di déranger parce que foo tël la ñu ngi tudd sa baax am na ñoo xamante ne ñu tudd baaxu jeeba da leen di déranger bu ñu yàggee tudd baaxu nday jaxate fu nday tël la merci fu nday merci fu nday tudd ñu ne nday dafa baax nday bu tëllee seen famille moom la ñuy tudd te yow da ngay gis ku nga xamante ne yaa joor dogguma la yàlla bu la dee dog tey jii nii dangay xool nit ba seppali ko ne yaay joor ni mu soxoree ni mu bonee te pourtant yow yow mi ko wax soit mbokkam nga wala xaritam nga. wala wala àndandoo bu yàgg la. non non nit des fois nit mu sosal nit te xamu ko dafa am ñu am fit. yaa ngi dégg des fois nit sosal la noonu wax wax bu ñaaw.

yaay nit mun nga ko mun nga mun nga mun nga mun nga ko xamal àdduna li ci biir. nit mun nga dund ak moom àdduna ak li ci biir te doo ko wax te tey jii fu ñu ne yaay dafa bon nga ne dëgg la ak a soxor te pourtant yow mi dinaan dëgg la ak soxor yow boo toogee nga évaluer seen vie musoo am xew te defarul ba mu baax sogal la. musoo am xew te yëkkatiwul lu mu am may la. musoo am lu baax te ñaanalu la. musoo am lu rafet te neewul rafet na. Mm-hmm. musoo solu te neew la sañse nga. Hmm? musuloo ko defal dara te santu la leci la ci bir nit ñi wa kon ani bon ah ani bon bon lay laaj anamu ah parce que yow nit ki nit ki yow nit ki nit ki yow li nga bëgg li nga li nga bëgg gëm rek yow loolu ngay gëm parce que xamal nga ñuy te souvent ñi ñuy tuuma tuumaa luñ ko sonn de tuuma luñ ko sonn tuuma luñ ko tok feebar kërëm tuuma luñ ko tok yorul dara tuuma luñ inutile bariwul tuuma tuumaal ñi nga xamante ne yoruñu dara xama ñan la ñi yorul dara xama ñan la ñuy tuumaal xama la ñuy ku feebar ñu tuumaal ko fekk soit dafa dafa tekki woon feebar wala nga mën a sañse ne ci sa jàmm ak sa salaam ba feebar ñu créé indi la li la tëral te xamuñu li la feebar ñi ñuy tuumaal te nga xamante ne amuñu dara sonn ñàkk yaa neen yàlla may ñi leen ñuy tuumaal yëpp mooy dëmm bi ñoom lañ koy jiiñ gisoo fi ku tekki ñu tam amul ku tekki yore xaas ñu tam la amul ñi amul dara rek la ñuy tam moo ma xool moo ma xool moom laa romb léegi feebar bi ma rombee léegi moom laa nuyu feebar seen kër laa romb moom moo fi nuyoo léegi feebar fes dafa yorul toujours nga jóge kër borom xaalis dem tëdd feebar doo ko tam bàyyi leen seen yooyu ngeen nekkee bàyyi leen seen yooyu ngeen nekkee te ki ñuy tuumaal ku ne merci ñu ne danga ko sacrifier waaw boroom xaalis yëpp buñ woon buñ kii dafa waaw nga xaalis boo gis. mu am doom bu feebar ñu ne moom la def sacrifice boroom xaalis boo gis baaraamam metti dagg ñu ne moom la tayle tukki woon na baaraam ba la tayle moo ko may alal mel ni yow yàlla mayewul alal naturellement man lijjanti lijjantiwuma ku yor alal ak noo ko amee lijjanti ma xam lu ma intéressé lekk naa solo toppatoo sama jëkkër ñeena ñëpp jàmm. da ngay xappi da ngay belli da ngay nekk sa jamm da ngay nekk sa salam gis nga boo bëggee jël problème adna bi yeb nga bëgg ko traité président sax day sonn président sax di ko di nuyu walé waaw waaw jomaay jomaay jaaxar fay suñu suñu président bés bi di koy nuyu walé yalla na yeen bi oyof ci mom li nit ñi yaakaati réew mi yeb yalla na ñep gis seen bop te mu jig ñep président rek day son bu dul woon sonde ministre du am député du am yenn fonction yi du am kon mooy gérer dëkk bi boppam moom rek àttanul dëkk bi yow nga bëgg yow benn nit simple cas yëpp nga ne yaa koy traité ku romb nga am ci moom kilo libre te xam nga jeeba loolu lan moo koy indi lu souvent ki nga xam ne demul dikkul gis nga boo dul génn am ay xarit génn soit ngay liggéey dem beneen environnement ngay nekk soo génnee sa kër yaa ngi ci bureau bi yeneen nit ngay gis yeneen sujet ngeen fay développé di wax waxi àddina nga génn am feneen foo dem ci yoo xamante ne day positif loo ma nag ay dem yu ñàkk fayda dem toog kaa dem foo xamante ne fu lak faay moo la fa yóbbu découvrir yeneen personne yeneen mentalité ñu ñu yaatal sa bopp bi dugg ci ci loo xamante ne da lay jëmale kanam ay projet lu lay jëmale kanam sa liggéey terrain yi ñuy jaay nooy def ba am ko nu may def ba am kër nit ñi man ci loolu la war a focus mais duñ ci aw ci loolu de xëy dem marché ñoo toog ñoo toog ci buntu kër gi ku romb nga ne ko attaay bi tegoogul te ko ñoom dañuy liggéey ba wàcc ñi teel a wàcc ngay jëkk kar ñu sànni la 1000 francs 2000 mën nañu woyaan ba am 10000 teg attaay bi ku ku perdal ni ñoom ñëw xëcc ci chaise toog ñu tardé rek ñooy toog ngeen commencé nag ñu liggéey woon ci suba dem nañ commencé nañ di wàcc ku tourné ak otoom ngeen ne ci moom bu dee gisoo leen woon oto bi commencé ngeen. kañ la eh, yàlla boo nekk xale bu jigéen xeesal ba weex teg sa cheveux bu gudd defar ba mbaa boo rombee ñu ne xool ko mbaraan rek lay def. <laughs> man tey laay bàyyi àdduna waaw fan la jëlee oto bi xaw na dee tas nañ ko ba pare door koo may oto bi non la njëkk wax fan lay liggéeyee ñu wax société ba loo foofu mënu fa jëlee oto foofu mënu fa am salaire bu am oto fa la jëlee oto bi keene muy yen wax dafa ko mën a jëlee foofu xam nga ne kii ci boppam xam nga ni kii mi ngi ci boppam bu liggéey ba wàcc wala wala wala directeur baa koy doxaan tuumaal directeur ba wax ja gën a sob ca société ba dem wax ko jabaram jabaram la créé bañ dàq la te yow directeur ba liggéey nga séq ak moom ak wàcc njibbi créé nañ la bu dee da nga mën sa liggéey mën li ngay def directeur bi yow lay jox bopp yow lay waxal yow lay woo laaj la dossier wala lii mais fa lañ lay jëkk a tuumaalee ne yow yaag directeur bi yéenay génn lu nekk la lay def loo sol ñu ne directeur baa la jox xaalis te am na ñoo xam dañuy ñëw ci société di liggéey fekk tedd nañ démb tey doog a ñëw indaale seen ay yére indaale seen ay dàll indaale seen ay cheveux feneen lañ koy jëlee jéem mais boo ñëwee société bi commencé nañ mu jéem ñun ñii di soyeeku dañoo am cheveux fan la ko jëlee tout tak tak ñu koy jiñ ko directeur ba yàqal la nag ñu dàqale nga génn am na ñoo xamante ne dañuy jekk mën a solu mën lépp am seeni diplôme mais mënuñu liggéey fenn foo liggéey ñu ne da ngay génn ak directeur ba dàq la doo liggéey tuuma. Mhm. nit day tuumaal nit yàq ko mhm. yàq deram mais xamul na yemul ci moom yaa ngi yàqaale deru yaayam. yaa ngi yàqaale deru papaam yaa ngi yàqaale deru ay ay yaayam yaa ngi yàqaale deru famille bi yëpp ay nijaay ñëpp da nga yàqaale seen der ndax am na ñi nga xam ne buñ la rombee ci mbedd bi même buñ la xamul bu baax dañu ne i ki kala ya yajor ki ki ki jarbatu la jarba jarbatu paala samble yalno ko yalla yirum yalno suuf oyof lol ci kawam wul zone be rek mbal mu soti amitié wala mu soppi fan ok mbëbës waaw samba jogal yalla suuf oyof lol ci kawam saraxam yag lol suñu loxam yow tak tay ji ni xam nga koku bo gisone tay ji yaajoo ni nga romb ko xamoo ci lu mu doon dox xamoo ci lu mu génn nga nga nga daal di ne xool ko kii fee de am na auberge mbaa du foofu la mbaa du lo joge jógee ah kii la kii kan la kii kii la jarbaatu eh, eh, la sa jarbatu eh, badara la jarbatu badara la yo xamo jarbatu badara bi xam ko kon fofu xas nañu nijaayam togn nañu nijaayam parce que jarbatam la kon xam nga yo xas nga ko mom ndaw si ba pare khas nga nijaayam wala nga xas tàntam wala nga xas yaayam wala nga te te des fois nit dañuy wara baye touti xel am tuuti yërmande xalaatuñ ko sax nit ki doo ko di ko yàq di ko yàq yàq ko njaajaan njaay amul loo ko wax bu amul li nga ne la defoon moo tax amu wala li li la moo tax amul li wala dafa lif lii gis nga nit gis nga labi ne fait pas le moine mm-hmm. te l'apparence est souvent trompeuse gis nga nit mun nga xool nit nii day jaxatee rasta la def nii nga defee rasta ci boppam la sax alors que perruque la la tere gis xanaa doo xool dañuy toog rek ne rasta la wala am fit rek daal di ne périg la xam naa ci dara per yow lii périg la maa la ko wax yow li ma lay wax man xam naa lii périg la fekk ay rasta la dañ ciy werante werante ay ma ne ko fekk périg la de waa complexe comment koy defar lii te yaa koy defar nga musóoru ci kawam romb rek tak am na ñoo xam ne xoolal da ngay romb rek créé nañ fi nga jëm boo leen nuyoo rek romb fekk am na ko génnoon seen kër romb njëkk dem solo keneen génn romb wala ñaan ñu solo génn dem yow subitement boo génnee rek ñu ne xam naa peut-être xam naa xew lañ jëm xew lañ jëm xam naa ñaan ñi ñaan ñi jiitu dañoo teel a pare xam nga moom dafa yéex xam naa ñu bàyyi ko fi dem xew léegi nag moom xam naa moo topp ci xew ma fekk boo xoolee sax fu ngeen jëm am na ñoo xam toog di créer fi nga jëm ba ba ngay yegg nga jibbi si xool fa nga demoon lijjanti lépp teg ko wax ko ay nit te am na ñoo xam ne xam lan moo leen tardeel ñi ngi de yàlla alak leen ci àddina bi lu ñu lijjanti du sotti lu ñu dugg muy yàqu seen xol du neex fekk tuumaal nañ gor boo xamante ni billaay tuumaal gor ku yàlla bëgg ngeen tuumaal ko ak xam dal leen loo lijjanti du sotti doo sëy doo doo kenn du la bëgg doo dara doo ko am fekk àq te yow kooku xamoo xamoo kan la am ñoom dañuy tuumaal tuumaal tom ba dañu xamante sax kan lañ tuumaaloon fekk yow àq yooyu moo la topp ndey te àq baaxul dafa sew man ma ragal àq te tuuma bi ci gën a bon mooy tuuma bi nga tuumaal nit mu toog ay année doog ko yëg mu def choc ci moom nag nga war a xalaat naan man kon man kon année yi may dox nii yëpp nit ñi lii lañ ma doon xoolee choc boobu li nit li Sénégal ni ma ragalee jabet ni ñuy yégee jabet rek rës noonu ngay rësee parce que yaa ngi naan man kon man li may dox nii yëpp keroog ba ma demee kër diw yàlla bu muy seen kër famille nag kër sama kër tante sama kër bàjjen yooyu kon ba ma demee sama kër bàjjen xale yi dañ ma doon xool kon nii loolu lañ ma doon xoolee fekk xale yi ñu ngi lay xool naturellement nii rek. dañ lay ragal sax dañ lay ragal. nit tuumaal nañ ko tuumaal nañ ko tuumaal te xam ma ban tuuma moo ci gën moo gën a neex des fois nga tuumaal nit mu ne pat toog di la seetaan nga tuumaal ko ci biir famille ña bees yàlla boo am sëy sëy sëy bees ñëw ci famille bi ka gën a rëy làmmiñ mooy ñëw jiitu ci séet ba am ñum fa tuumaal yow séet ba soo dofee ngay moytu ñooñ gis nga ña ngay moytu ñoo baax ci yow gën ci yow ña ngay moytu souvent ci boo sëy see te njuuma la ca kër ga nag xamante ne puusul paasul demul dikkul kenn bëgg ko kenn nawloo ko dara safu ko du mer dina mer sax mais du ko wane dara du ko saf moom moom moom la nit ñi yàqu rek yonam nekku ci amul lu muy danaan el naa rena à perdre kooku mooy jitu ci yow ci ca ba nga sëy moy mooy moy mooy tul ma nga sëy rek nit ñew jitu ci yow mm-hmm. yaq wa kër ga ah sëy ga kaay ma won la kër gi nak mooy tul ma ndey jaxate mooy fenkat bi fen fenkat bi ngi tok toog jàkkaarloog yow mooy tul ma jeeba lum lay yek bu mu ñew sa néeg da lay liggéey gis nga sa jëkkër nu mu yéexee tak jabar dañ ko liggéeyee liggéey ba wala wax la amon na gel bu fi daan ñew moom la faraloon fii góor gi fi takk jabar amoon nga ay gel ne la yow la takk de waaye amoon na gel de ba mu fi daan nekk di fa gel fii la daan yendu fi la daan fanaan kële yàq léegi nag yow soo soo dofee wayat di manqué ba mel ni ñett dërëm ñeenti di séddoo nga toog nag ne ah rek armé nag bu ndey nuyoo la ci kër gi sax nga ne ko ah, ça va jeex na jee ba ñëw nuyu la nga ne ko ça moom mooy ñëw di indil mooy dugg sa néeg moo lay waxal gis nga première raak bi ngay njëkk am ci kër gi moom nga koy amal léegi yow soo teeyee toog dangay ngay dem a dem dem bay xool di xool di gis yow famille bi soo ñëwee kii ni mu baaxee gis nga baax ak bon nii la ko suñu borom tegee ñëpp ko mën a xàmme te te te boo ci moomul danga koy tegaat gis nga boo moomul bon boo ci boo ko ci commencé jël ko di nga ko teg dalay lakk baax soo ko moomul da nga koy teg dalay lakk soo toogee rek seetaan yow jàpp sa ñàmbur yow nga toog ndey mi su dee dafa baax nga toog ñu la dafa bon yow tooga rek di seetaan du ci yàgg di nga xam ne tôt ou tard ndey mii moo baax kee ñu la wax moom mi ñu di ñëw ci moom toujours moo bon di nga koy xam ne pat jàpp sa ñàmbur def des part des choses fa ngay xam moo tax nit da ngay teey lu ñu la wax nga teey dafa am lu bëri lu yàq yi mu faiblesse. moytul ma ko nit dangay dëgër. ak beneen ak borom benn nopp. gis nga benn borom nopp sax. borom benn nopp moom laa lay wax nii mooy ma ñëw rek nekk ak nday jaxata ñu nekk ñu ne ànd depuis xale xamante lépp ñu ñëw yàq ma ci ndey nday gëmma loolu mooy borom benn nopp man kooku mënuma ko supporter. yaay joor attention dafa am ñi nga xamante ne dañ dañ leen di tuumaal ci nit waaye nit kooku da koy jël gëm ko à cent pour cent parce que dafa am fu la qualifié ndax am na ku la njëkkoon tuumaal ay ati ati ati yàq sa der yàq sa àdduna yàq sa àdduna ci say biir nit ba ñooñu kenn nawloowu la kenn ñemewu la te tey jii nii ku ko neewoon jëlal kaamin bi nga rëkk li ko wax dëgg la xalaatuñ ko duñu waat mënu ko indiwuñu preuve dañoo bon gis réaction ñi ak niñ lay beddee gi ñu lay fekk xaw nga dee mais tôt ou tard suñu borom day atté way lu ci gis néna yalla day atté dé waye sa xol bi day yendo di bax suba di bax suba ba jant so am ko xamné yorul dara dara dara dara am plaisir tout temps té day contane di japp nit ki diko ciokor ciokor diko togn diko def ay affaire parce que man je me dis que ni nit bu la bañee ba mu jaral la di la tuumaal du question da nga am wala dara dé nit dina la xool rek ni am lu mu gis lu ndaw ci yow lu mu amul loolu di ko dagg xolam di ko metti di muy bëgg a dee ba mu jaral ko tey jii fu ñu toog di la tuumaal wala yàqamti na lu ñu wax sa jikko bu ndaw mu participer ba mu bari doole. parce que da ngay commencer rek duñ la dagg am na ñoo xam ne dañuy nekk mbokk toog diw jàmbur jugee fële ca àll ba ñëw man naka laay amee sama ay mbokk ñu toog jàmbur jugee ca àll ba nday ñëw bëggal tuumaal sama mbokk ëllëg man mi nga xamante kii sama mbokk la bu ñu ndee xoowul ma freiné la. ne na loolu amul barki xalifa Malick man nit ñëw di tuumaal nit sax duma ci sax xam dara ma ne la loolu amul nga ne ma di waat ma la amul kii xam naa ko loolu fekkee naa ko amul pour rek nga nga dem mais duñ ko def de da ñëw di tuumaal tuumaal ki bokk si mbokk bi de yow ñoo bokk nday jaxate ñëw di ma tuuma ñëw ne ma waaye yow jéeba mii yow sarak ji tuuma ne la yow yow foo ne gën ci yokk xal mi karaw dëggal man du ma nangu jàmbur bu ñëpp defoon noonu jàmbur du jóge ci àll ba ñëw tas suñu famille mais dañuy favoriser jàmbur boobu. waa parce que xam nga lu tax yaay joor waa xam nga lu tax waa joor xam nga loolu lu ko xam nga lu ko waral loolu. topp kaa ak bëgg kaa. moom laa lay wax. mooy ñëw ruutale famille bi da ngay ñëw di wax duñ la tontu. du ma la may importance boo nee ah, ah, un ah. déglu pour bëgg a xam. bëgg kaa am luñ la tëyee poñ ñu la tëyee ci wet gi nii pour di la ci déstabiliser. gis nga nit yenn saa nga xool ni defu la dara waxu la dara nga singali ko di ko bëgg a rey. di ko def lu ko metti di dagg te kooku yëgu ko sax. xam nga lu tax xam nga man je me dis waral loolu. waaw. xam nga ne ku ci mel ne man mi bëgg àddina bëgg soloog summeeku waa mi ngi noonu du sax solo du sax summee xam nga lu waral loolu mm-hmm. gis nga nit xool la yaay joor jalousie la wala soxore la loolu ci nit la xam nga li ma la bëgg a wax te man saa faa bu ma rombee yaay joor dama koy minimiser lu mu wax baaxul lu mu def baaxul maa ngi koy damat di ko wal ne ni ko dof nga di ko def ne xam nga lu tax loolu c'est parce que tu te sens inférieur à la personne yow mun nga toog takk say jama, nit ki toog amul sax baaraamu loxo fekk yow tu te sens tellement inférieur mhm. devant elle wala devant lui tu te sens tellement inférieur mhm. ba nga xamante ne yow tout le temps da nga koy jéem a dammat ci ay wax di ko ko yow xamoo la a xam yow la gën a def ay dammat ay non non du question de moom laa moom laa lay wax dofuñu jinne mbaju du la loolu jalousie la yaay joor c'est parce que yow boo xoolee nit ki tu te sens tellement inférieur ba nga xamante ne yow tout le temps da ngay jéem a di ko damat pour mu fekk si la yow ci sa niveau bi nga nekk. Mm-hmm. Ah, loolu da lay loolu loolu bu la toppee da lay jaral ba nga xam ne da ngay dem sax ba ba yow yow da ngay sosal nit ki da nga koy waxal wala di ko xool naan yow ma ne la man kii nii la mel ak nii xam nga yéen xamu leen kii kii nii la mel kii nii la mel kee nee la mel gis lu nekk ci biir xolu nit ki. yàlla kese moo ko xam. yàlla rek ko xam suñu borom rek ko xam nday nday kenn xam ba ci ba ci salon yéen yéen yore salon nday nit ñi léegi ragal nañ sax dugg ci salon yi koo ko wax mun la dew ma ci salon bi yàlla bu salon bi bari élève di bari nit di bëri mumbaay bëri langue ci biir nit ñi duñ fa ñëw. ñu bëri dañ naan salon bi daa bëri nit dañuy làng dañuy toog boo fa duggee ñu jëw la tuumaal la yóbbu sa wax yàlla bu salon ba nekk ca biir koñ ba bari na man gis naa fi ku yore salon indi indi nitam ca salon ba ñu jiñ ko saaj mu jiñ borom salon bi saaj euh, te yow dañ la faawoo pour nga liggéey waaw moom laa lay wax moom laa lay wax da yor sa salon mais yow ña nga jël ca salon ba ñoo lay njëkk iññaane ñoo lay njëkk tuumaal boo ñëwee di wax ci kii waaye am seen yàlla boo fa bañ a nekk am seen patron moom waaye ma ko taxawaal mel ni amul jëkkër nga ne ko waa man de jaaxle naa waaw moom day génn rek fu mu jëm fekk yow sa bi salon bi ma ngay wuti ji xar matt ci biti loo xam ne moo leen di fay yéen ma ngay dem di wuti lu leen di fay soit ma ngay ñawi ma ngay wuti def ma ngay ma ngay wuti GP di yóbbu ay kii yóbbante Europe mu jaay di ko doxal boppam tànkam du sax jël si pour pour xaas bi di wàññeeku ndax yéen la bëgg a fay dimbali leen mais da ngeen koy tuumaal dem na kii daa toog ci salon bi te ngeen koy waxal sa ay xarit la ñuy nekk. yàlla boo am sa càmmiñ bu ñëw faram waa waaw ngi noonu xam naa waxtu baa ñuy xoj fi toll nii ndey tuuma moom du fi jeex dañ koy yeggali. tuuma dañ koy yeggali ndax liñ ci nar a wax yëpp. liñ ci nar a wax yëpp billaay wallaay xajul xajul xajul ci benn émission. moo tax naa dañ koy dagg fii rek ba ba ba semaine prochaine incha allah ñu gën ci xuusaat lii ñu fi jot a indi ngeen ci jël ci leçon ñuy tuumalaate ngeen xool liñ fi wax yëpp te xam ne ànd amul solo ànd amul solo wax mu wax mu yegg rek yàlla la neex à tout moment suñu boroom mën na la jël nit ñi feebaratuñu bu yàgg ba da ngay jékki-jékki ñu naan diw feebar na man ma nekk xale maa fa waroon ku feebar mooy dee mais nit ñi feebaratuñu tëdd dee malee sa oto romb na ma léegi dee ku xalaat loolu ak tëraay bàmmeel doo tuumaal kenn ndax fii lépp day jeex loo loo jël si yow xeeb ko am na koo xam ne bu ko amoon jël moo kenn ñee jeeba wala nga ñee nday jaxate wala nga ñee yaay joor wala nga ñee keneen jarul ñee kenn ñee taate mooy indi tuuma pour pour tuumaal nit ki pour am li la neex loolu baaxul loo xeeb am na ko am na ñoo xamante ne yow yaa ngi sa kër ne aw ma dara fekk am na ñoo xamante ne amul fu fanaan ma nga ca mbedd ba tëdd am ñoo xam ne waxuma la mbedd ba tëdd mais wéruñu ñu ngi ci mbedd yi di taxawaalu yow yàlla suturaal la sagal la ba nga am kër am foo tëdd di lekk di naan loolu rek sax la loolu rek doy na sëkk lu la ci suñ borom tegal bonus la yeewu tek sa ñaari tank rek di dox bonus la sa ci dara dem ci lool rek lool rek sak la sant yalla la kon nak tuuma ci carton yalla yalla suñu borom raxas ko ci xelu ñep amana du yomb mais liñ fi jotta wasari ci biir émission bi yalla si jël leçon ba ñep mën ko wañi bayiko ma bàyyi la jeba nga taggo waaw ya liduf li li duuf ci nak li xajul ci sin li ndax sa su ne ñun mom dañuy genn fu noy dëgg la ndax euh, yaajoo day indi ay thèmes macha allah yi nga xamante ne buñ ci xuusee ñëpp a ciy gis seen bopp. Mm-hmm. te tamit ñu ngi jéggalu bu dee wax nañu lu ñu warul wax. Mm-hmm. wala def nañu lu ñu warul def. wala wax nañu benn point laal na nit ki ndax def na lu mel noonu. Mm-hmm. ah ñu ngi lay jéggalu te nga xam ne rek yaa ko def. waaw te ku ko def moom ñu wax ko. waaw euh, maa ngi maa ngi remercier nag sama tailleur bi ma ñëwal lii ma maman Diatou borom cité jii di mbay borom Lif et moi. Tisu bu yanj bi ngeen may laaj boobu ba mhm, eh, sama sama rakku yaay moo ko Madam jaay madame gay Masar borom complexe babia mo koy jaay maa ngi koy nuyu babia nañ jox ci tissu na leen jox ci tissu yi babia nekk nañ jox yee gën kompleks ndaw ci joxe tissu yu ne la yor complexe borom siti jili mbay madame gay ulay li mooy jaay tissu yu nice yi ñaw bi borom lif et moi la mo fi jaar defal bom baah gisnga gis nga madame gay massar mooy jaay tissu yi waaw. madame Thiam Thiam Dogo moo ñëw moo moo moo moo ñëw ah, tenue bi te ñoom ñaar ay doomu ndey lañu c'est macha allah seen borom kër yi di doomu ndey madam gay mooy chéri Momo Momo Gaye madam ah. ah, madame madame Thiam mooy mama Jatu mooy chéri Khalifa Thiam di doomu ndeyu Momo ah doomu ndey Momo Momo di doomu ndey Khalifa Thiam yàlla na jàmm yàgg yàlla tere ñii duñu du ñu waxante lu ñaaw ndax macha allah petit ba grand lañu di defante lu baax di waxante lu baax te seen jabar yi macha allah tabaarkalla yàquñ ci dara yàlla na jàmm yàgg yàlla leen yàlla lafal cat waaw donc ñu woon fii ci suñu émission seen société ci biir seen média ñu ngi leen di remercier balaa maa tàggatoo ak yéen dama am sama nit yu baax yi nga xam ne dañ maa bëgg déedéet faaw ma nuyu leen nag yaay joor faaw ma nuyu leen nag ku ci mel ni ku ci ku ci mel waa tey tey tey mbër laa tey mbër laa tey mbër laa damaa ñëw ñëw mbër maa ngi nuyu gannaaw bu ma santee yàlla di julli samay ñaami waajur di sant sama sëriñ maa ngi sant sama mag ki ne ñang ñang mun daay farapend nguuda yàgg maar moom tuuma laa te dalu ko mu boole ko rakkam Adja Bint bii bi sama doomu ndey sama ndey dikke sama mm. yaama neex ki ma bëgg safoo ma faale ma mm. ñooñu xamuñu luy tuumalaate doxuñ ci waxuñ ci maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla may gudd fan lafal leen cat musal leen ñu soqaloo ni asamaan ak suuf du nuyu ñëpp di ziar ñëpp hmm? di nuyu euh, euh, Aïda Basson madame Diaw Aïda Basson borom Sicap Liberté maa ngi lay nuyu madame Mendy Cocotte seen maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yéen ñëpp maa ngi leen di ziar. di leen jox seen wàcc waaye di leen jox seen tatagal démb nag yaay joo dama am sama cousin ku ndaw la huit ans la am. Mhm. sama doomu nijaay la. kër nijaay weli. Mhm. waaw démb sama anniversaire la woon moom ak rakkam mu ngi tuju li tiijaan li ak rakkam bay laa sow. Mhm. ñu ñëw fekk ma ba sama biir néeg yëkkati ay parfum yu neex yu riis ne ma ñoo la ko jox ndax tiijaan tiijaan dafa maa nopp. dafa maa na la am moo def moo def délégation indil ma parfum bi ànd ak am ñu ne ñoo indil parfum bi maa ngi leen ah, nuyu Tijaan xamal ne sama doomu nijaay man sa doom bàjjen maa la gën a nopp mariage bi c'est à bientôt incha allah jeex na tàkk mariage bi à bientôt yàlla na yàlla taxaw leen baax a baax a baax xale yooyu ñu màgg bàgg lool te njariñ dëkk bi ndey ma bàyyi la nga nuyoo tey moom dañoo topp ba temps bi xoj ñu waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyoo ñu ngi ñu ngi tàggatoo di leen wax ba beneen yoon incha allah ci seen émission euh, seen société te ngeen xam ne lépp lu ñu fi wax rek pour defar la mhm. nee naa la chaîne yi bëri nañ ci dëkk bi te yi bëri nañ ci dëkk bi bu ñu dee yeete ñu fi jóge mhm. ndax tey jii suñu président de la république tey li ko fal ci tuuma la jóge mhm. tey yàlla day àtte mooy li may wax rek tuuma lu la nit tuumaal teg ko ci sa dëgg teg ko ci loxo suñu borom te xam ne suñu borom mooy àtte képp ku la mën a tuumaal xamal ne suñu borom day àtte bul ko sax yëgal sa yaram yow mi nga xamante ne yow lañ tuumaal amal sa fulla ak sa fayda ga nga xamante ne xam nga ne defoo waxoo yëkkati sa yëkkati sa bopp ca kaw am sa dignité ak sa fulla ak sa fayda ñu ngi tàggatoo bëggoon nañu cité mais temps bi daf ñu xoj ñu ngi koy lépp ba ba ba bii di ñëw incha allahu rabbi ci seen benn émission seen société inshallah allah lañuy tagato tay nak sama tagato tay duma ko jaglel kenn ku dul sama rak jema dendel muy jeyna baba jeba di wax joyeux anniversaire demb la won anniversaire am man ko wax joyeux anniversaire muy xalé bu baax buma bëgg safoo ma fonkuma def ma kay di waxtaan ak man di sok man jeba ma ngi lay ñaanal yalla nga dundu ay at yu bare bare bare bare yalla may la borom kër gu baax gula la sama tukuleur bi baax nga yaatu nga ah di dom ci anu makoy ñaanal fa mu tudd yalla nako yalla xare aljana yalla na fi dawsi anu di don sama sama umpaañ ju bax ci man jeeba mi di domam ma kontaan ci mom mu bëgg ma depuis bobu 2005 ba légui ak bébé rose mi mu fi bàyyi bi lay ano moma ma bëggoon bébé rose mi mu fi bàyyi yalla na suñu borom def ko mak bébé rose ak aida aida domam yoyu yàlla na yàlla ak doomam bu góor bi maa ngi woon ca mu xaaji mu ngi ba France mu xaaji yàlla na leen yàlla def mag seen yaay mii dudd yàlla na leen dëddoo jàmm ak salaam ngeen dund ba tekki ci réew mi ba ñu leen dégg fépp jeeba foofu saraxam yàgg jeeba maa ngi lay ñaanal joyeux anniversaire yàlla na nga ko feete at yu baree baree bare at bu ñëw gën a neex ci kàttanu yàlla waaw ndax su ma duggee ci way daw lay wax dëgg yàlla damay ñaan di ñaana sama maam nday ca ba pay mbay ca ba pay maa ngi koy ñaan sama maam ma bëgg ko sama xol sama maam mu bëgg ma fonk ma yàlla na xippee aljana si mook sama ndijaay paala sàmm yàlla nañ xippee aljana firdaws sama maam jigéen ju baax jigéen ju gore bëgg ma maam waroon fekkee émission bi ndeysaan ndax daf ma daan xool rek di reetaan maa ngi lay waaw billaay maam yàlla na yàlla na xippee aljana firdawsi bay njéeme yaay soon bëgg sàmba seeni jaraaf bu baax rek nga nekkoon ba yàlla jël la heure bu ma tëddee ñaanal la heure bu ma jullee ñaanal la heure bu ma tëddee jooy tamit bilaay wallaay heure bu ma tëddee jooy fay njéeme sànn manqué nga ma vraiment yàlla na yàlla euh, dugal la ci na yi gën a kawe di leen jox dig daje incha allah semaine prochaine ci beneen émission ci thème bii la ñuy continuer ndax tuuma dafa yaatu jaa ngeen jëf waa seen média Dabzo kontaan nañ ci yow